ginnaaw ba ñu la nuyoo monsieur le ministre tey nga ñëw fii ci euh, sëriñ bi sëñ Sidi di màggalu sëriñ Abdou Lahad Mbacké seet euh, nga xam ne moom moo di euh, yóbbante président la république ndax mën nañu xam lan nga jokkoo ak ki nga xam ne moom moo di sëriñ Sidi di xalifa sëriñ Abdou Lahad Mbacké ak tànk yi nga xam ne moo fi ñu ngi fi indi waaw dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba di ñaanal sëñ Mountakha yàlla yàggal ko fi tam wër di ñaanalit sëriñ Sidi mu Cheikh Abdou yàlla wërali cëram guddali fanam di ñëw fii nag ci turu président Macky Sall ànd ci ak ay jëwrin Dame Diop ñëpp xam nañ ko muy doom ci kër gi di doomu Jurbel ànd ci ak le ministre conseiller Ibrahima Ndoye ànd ci aussi ak suñu sëriñ monsieur le ministre sëñ Abdou Mbacké waaye it ànd ci ak gouverneur ak conseillers techniques yi ñi nga xamante ne ay ministre conseillers lañu daanaka daal délégation bu takkoo takku ñëw fii ci kër Cheikh Abdoulaye fekk fi Serigne Sidi jébbal ko it kaddu yi ñu président Macky Sall jox di kaddu ziar di kaddu bokk ak moom bés bi di bés bu mag bés boo xamante ne ci la jàmbaar jooju. di xalif général Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wéy ju borom ñuy ñaan yàlla yàlla yokk leeram sëriñ Sidi nag war ngeen a xam ne ku ko seet si boo bokkee ak moom bés bi ba pare jàng ci moom lu bari ngay def li ñu jàng ci moom nag te ñëpp war cee topp mooy dëggu mooy am fulla mooy nangoo féete nangoo liggéey loolu nag bu ñu ko amee ci suñu kilifa suñu ko seetsee ñàkkuñu cee il faut ñu jaaraat ci pour won ko ne ko doxaninam ak waxam ak lépp lu muy def njëriñ la ci askan wi li ci des mooy tàllal ko ay loxo ñëpp xam nañ kilifa réew mi digganteem ak ki nga xamante ne mooy Serigne Sidi non seulement ci liggéey bi muy def ci réew mi ci wàllu agriculture mais aussi ñaan yi nga xamante ne moom la koy ñaanal en tant que doomam en tant que taalibeem li nga xamante ne nag sàkku nañu ko ci turu kilifa réew mi mooy jàmm ci réew mi yàlla def dal am ci réew mi yàlla def nit ñi nekk ci seen jàmm ba mun a jàmm yàlla ñi war a dox li ñuy dox ñu dox ko te fitna ba na am ci réew mi la ca tegu mooy bu ñu ñaanalee ñëpp jàmm dañuy jublu ci loo xamante ne moo yore réew mi muy nawet ñuy sàkku ndox mi bari te du lore te lu nit ji mu sax ñu muurloo ko loolu sàkku nañu ko ba pare nag wëlbatiku ñu ñëpp taalibe yi ñaanal sëñ Sidi mu yàgg fi te loo xamante ne lu baax la njiit boo xamante ne bu waxee nga jàng bu doxee nga jàng bu jëfee nga jàng dangay ñaan mu yàgg fi ci wër mën a continuer di defar doomu aadama yi loolu wax nañ ko fi ñaan nañu ko fi ba pare li ma wax léegi rek Cheikh dañuy ñaan yàlla yokk leeram yàlla taas ñu ci barkeem ñu ñaanal nag képp ku bokk ci famille Serigne Touba jiital ci xalif bi yàlla jàmmal la yàlla yàggal la fi yàlla wëral la loolu mooy kaddu yi ci tënk li nga xamante ne wax nañ ko sëriñ bi sëriñ bi rafetlu ko delloo kaddu gi jaarale ko ci Cheikh Abdou Bara di ministre conseiller mais aussi di homme de confiance di jàppale président Macky Sall te muy dëgg li mu ñu delloo mooy dalal suñu xel ci réew mi li fi Serigne Touba liggéey jàpp naa ne lu pënd bi bari bari ci leer lay mëj parce que saytaane du fi am lu bon du fi am te yàlla ñu jàmbal daanaka daal déglu kilifa mu wax lu dalal saxel moom lañ fi génne nii génn ceeg mbégte génn ceeg yaakaar bu am solo solo loolu moo doon kàddu yi ñu fi tey